jërë ngeen jëf bi ay ak Sall di ñaari député Benno Bokk Yaakaar yi ñu tudd ak tuumaal ak taxal ci coowal trafic passeport diplomatique yi l'observateur ne nañu dafay yàgg rek waaye danañu am lante ak yoon gaañi ñoo ngi seet nu ñuy def ba ñaari député yi di El Hadji Mamadou Sall ak député Boubacar Biaye dem ca yoon lijjanti liñ leen di tuumaal te du gàkkal derum nguur gi l'observateur xamal ñu ne mbir yi politique rax na ci bu baax a baax am na nañu nuppi maye patt gi avocat bi di maître Abdoulaye Ba jiite woon fii jamono commission des lois bu assemblée nationale mi ngi ñuy wax ci biir l'observateur ne assemblée nationale mën naa woote ab session extraordinaire ngir dindi immunité parlementaire yu ñaari député yi ñu gàll ay tuuma waaye ndax dana ko def te it bu boobaa buñ ko doon def it du loo xam ne dañuy xëy xëy rek def ko dafa am fu mu war a jaar dafa am nu mu war a demee procureur bi mooy saisir assemblée nationale ne ko dama bëgg topp ci yoon diw ak diw te comme dañoo amee immunité parlementaire moo tax may sàkku ci assemblée nationale mu dindi seen malaanum kiir lay di seen immunité parlementaire maire maître Abdoulaye Babou ne bu dul loolu li fi sës mooy ñu def ni député bu Gazeli defoon mu di démissionné ci seen coobare bopp ngir dem lijjanti ji ak yoon li ñu leen di tuumaal te bu ñu xasee ba démissionné moo di yàqu nañu ndax bu ñu leen siisee ak bu ñu leen siisewul duñ ca mën a dellu gannaaw libération nañu bu weesoo li ñuy séntu ci yoon ci ñaari député yu ñu tudd ci coowal trafic passeport diplomatique yi mbir mi dafa war a tax kilifa yi jiite réew mi doore ko nag ci président enquête ba gis nañu ñeenti passeport diplomatique yu wér te wóor yoo xam ne waa affaires étrangères ñoo ko délivré te ñu ko jox di ko ñu naan Oumar Sall Moussa Antoine Sall Aïssatou Sall ak Sadi boo doon wër Sénégal ba mu daj doo leen masati gi gët ndax amuñu existé wuñu ay fantôme la ñu ci gàttal Sud Quotidien nañu mbiri nju njaaj ak foo dafa mel ne assemblée nationale da koo bëgg a aakimoo ngar daajoo ko ay député yu tegewul ci yoon ay député yu dul doxal yoon ñoo fa bari ne boo fa déggul ay xët mu njëkk Sud Quotidien moo war a tax nag ñu xool anam yi ñuy tànnee député yi ba di leen fal Seydina Fall Bougazelli vidéo bi lëmbe réew mi keroog ba ko gendarme ya di jàpp lisé ko ne nañu vidéo ba tàmbali na ay jafe-jafe gendarmerie ubbi na ci enquête colonel Cheikh Sarr commandant centre ouest ba ca Kees moom la dénk enquête ba gendarme bi doon filmer scène bi yéenekaay bi ne nañu déglu nañu ko démb gendarme bu jigéen bi ñu gis mu toog ca wetu Bougazelli ci biir oto di ñu ñëw ci journal La Tribune élection locale yi ñu jëm journal bi nee nañu tàng jër la nar a def ca Dagana ndax am na meneen bër beneenub candidat bu ñu fay dégg mu di Cheikh Ahmed Tidiane Cissé candidaturam ca mairie bu commune bu Dagana surnal bi nee nañu demande sociale la askanu Dagana ñoo ko bëgg ba sàkk ko ci moom ci visite de proximité bu mu doon def ca Dagana ak doon dugg ci yenn kër yi ngir doon jaale ji fala askan wi sàkk ko ci moom mu doon candidat ci élection locale yi ñu jëm ca mairie bu Dagana waa ji di Ndiaye di ko dëggal ci biir la ba di ñu xamal ne askanu Dagana ñoo ne soxla wuñu ab politicien ca dëkk ba li ñu soxla moo di boroomi lijjanti personnalité maanaam ab l'homme d'affaires bu mën a suqali dëkk ba te loolee Cheikh Ahmed Tidiane Cissé doy na leen ci ndax la mu fa wane ñu wàññeeku dem ci Vox Populi journal baa ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkk ne xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ginnaaw juróom fukki millions yi mu yëkkati woon bu yàggul joxoon ko askan wi loru woon ci inondation yi ca Touba moom sang bu tedd bi yëkkatiwaat na yeneen téeméeri millions ak juróom fukk dolli ci dolli Sénégal journal quotidien nee nañu ëpp na téeméeri million ak juróom fukk téeméeri million ak juróom-ñett fukk la ndax jox na 150 million Lorafoni waame gi jëlaat yeneen fanweeri million jox ko waa Touba ca kanam ngir jàppale leen ko ci liggéey yu ñuy def mu jëm ci wàllu assainissement bi suur suwaa nañu bàyyi defal yàlla dëgg mooy Sëriñ Muntaxa NCA tey ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre nag ñuy màggal ci àddina bi yëpp lii di jàmm ñu wutale Casamance foofe nag ca bët saalumu réew ma gis nañ ne daal ñeent fukki at la ñu toog daanaka jàmm jegewu leen waaye nag tey mën nañu loolu jeex na fa ndax bëri na gox yoo xam ne jàmm lañ fa daal di nemmeeku ñu ngeen nag liggéey fexe ba. ña ñibbisi woon maanaam ña dawoon seeni gox ñibbisi fa tey ñu fex dal ba ñoom seen biir nañu amee jàmm ñu nag gis ne lii di euh, yaakaar mën na am ci ñii di enseignants yi di ay classe xel ñoom ñi nekk te grève de la faim maanaam xiifal ca siège yu euh, FRAPP gannaaw seen waxtaan ak kilifay ministère bu éducation demoon seeti leen kii di Saourou Sène jiite SAEMS e di si dox tànki jàmm doon meete ba nag ne li mu bëgg mooy ñoom ñooñee daal dakkal seen grève de la faim ndax ñu ngi ci ab liste kon nañu xaar ñàkkul du yàgg yëf fi daal di yemb lii di mbënn mi xalif général des Mourides ca Touba Mbàkke nag génne war na téeméer ak juróom fukki million teg ci taabal gi ngir wallu ñi loru ci mbënn moomee loolu nag gannaaw beneen enveloppe bu mu njëkkoon a génne toll ci juróom fukki million mu nag war a jàppale lu mu néew néew ñetti junni kër dañu dem foofe ca Touba fekk fa Pape Balla Gaye ci ay leexal ñaar pàcc xibaar yi tàggat yaram dañ ci ànd ak Malick Diagne junior yéene kay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique dal leen jàmm tey ñaar fukki fan benn ci septembre ñuy màggal ci àddina bi bés bu ñu euh, euh, bés bu ñu jagleel lii di jàmm ñu wutal nag foofee ca sud Sénégal ca Casamance. lu mu néew néew toog nañ fa ñeent fukki at yoo xam ne jàmm jéggewu leen benn yoon waaye tey mu mel ne loolee jeex na fa ñu ngi nag liggéey ba fexe ña dawoon seen i gox dellu si fa am jàmm waaye nag fu ñu koy jaaxalee ak nu ñu koy defee léeg-léeg Lamine Ba ca Ziguinchor. màggal bi nga xam ne nag dañ fitna wi ci bët saalum réew mi dund nañ ko fii mu doon fitna wi nga xam nag ñaari at yi weesu am na jéego yu am solo yi nga xam ne nag suñu tàkk der def nañ ko mu jëm ci wàllu delloo si karange fii ci bët saalum réew mi ba tax na mën nañ jàpp am na di diwaan yi nga xam ne nag ñoo ngi fa ne woon nguur gi nangu na ko lépp ba tax na jamono ji li nga xam ne nag moo di yéetee nguur googee ci Casamance soppeeku na bu baax a baax li ci gën a jàmp jamono ji mooy fexe ba jàppale askan wi nga xam ne nag dañuy ñibbi seen gox yi ñoo ngi ko war a doore nag ci li jëm ci wàllu jëleel ndel li ci bërëb yooyee ngir moytandu lépp li nga xam

karange fii ci Casamance waaye xaatim yooyee li koy tax a jóg mooy fexe ba dalal xel ñi nga xam ne ay investisseurs yu bëgg ñëw Casamance la ñu Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. des ba tey ca Casamance bu dee am na ñu doon lam-laamee ne dal moo fa amoon tey nañu xam ne jàmm daanaka moom moo fa dellu si ndax daal gis nañu ay coppite yu bare bari yoo xam ne ñii nag di way takk dara ci mim réew ñoom ñoo ci taxaw ba kaaraange am fa bu ci war ci wërskatu xibaar bii di Mouhamed Tidiane Ndiaye doon tam chef bureau régional bu agence presse Sénégal di APS mu nag jàpp ne bokk na ci li waral daal ñu daal di neutraliser maanam daal di neenal pexe ña fa doon jaay seen i doole mooy li ñu doon am ci wàllu koom-koom amatuñu ko waaye tamit seen i base euh, ñoom ñooñu di ay rebelle nag la combattant yi dem daal fexe ba teg fa seeni loxo maanaam euh, waral daal ba jàmm ci jamono daal daanaka mun nañ ne am na foofe ca Casamance ñu déglu moom mii di Mouhamed Tidiane Ndiaye ak Lamine Ba. état bi dafa soppi ay pexe change stratégie fexe na ba base yi loolu moom jeexal nañ ko tàkk na saxal nañ leen léegi nag loolu bu amee mbir yi dafa soppeeku bu baax parce que tey jii boo xoolee fépp foo xam ne nii rebelle moo fi nekkoon état bi jël na ko defa fa cantonnement militaire loolu nag li ko waral mooy état dafa am lu mu def dafa bàyyi ba mbir yi nga xam ne dafa dafa nëb carrément ñu naan état bi kii lay wax ak kële lay wax ak moom mu noppi rek di def li muy def si suuf di yokk euh, kattanu askan wi si seen wàllu développement waaye en même temps tamit di xeex gars yi si suuf état nag interlocuteur bu ko amul nit ñi ne nañ taxaw signé bu ñuy signé jaam état bi kan lay signé état bi nag taxawagul fi nekk nii boo xoolee ni mbir yi demee nga analyse yi baax da nga xam ne taxawagul pour signé jaam dafay gën di continuer ba nga xam ne nii fépp fuy euh, mètre carré suuf si Casamance état bi taxaw fa zone de non droit fi am taxaw fa jëmal fa def fa école def fa ay jumtukaay paj def fa loo xam ne ni ba dara dootu fi am su boobaa nag état du taxaw di signé kenn parce que boo fi signé kenn dara signature yi dafa am ay clause yoo xam ne dootul arrangé état si affaire statut spécial ak yu mel noonu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. audience bi nga xam ne am na démb diggante ay enseignants yena ca grève de la faim ak directeur bu ressources humaines di kenn ci kilifa euh, foofe ca ministère bu éducation nationale sawru seen nag di ci dox tànki jàmm ne am na daal loo xam ne am nañ ko ci ci wàllu euh, woowe daal yaakaar am na ci bu ñu sukkandikoo ci kii général bu SAEMS ministère bu éducation nationale daal li mu bëgg mooy ñu xaar ndax seen i tur ñoom ñoo di grève mu ngi ci ab liste mooy li ñuy wax liste d'attente waral nag ba Saourou seen di leen rek ñaan ñu dakkal seen grève boobee ñu ngi euh, ak Saourou Sène ak ci micro beeg Ibrahima Diamé. ñenn ci ñoom aussi ñu ngi ci liste d'attente yi le directeur des ressources humaines nee na. au ñuy avancer. bu dee am na ñoo xam ne dañuy dégisé dinañ xool quota bi xool ñooñu naka lañ leen mën a dugalee en tout cas loolu la ñu retenir ci euh, rencontre bi nga xam ne am nañ ko ak directeur des ressources humaines. kon yow loo leen di wax loo leen di woo mu ñu seen mot bi euh, wala euh, ñu xaar wala loo leen di wax exactement. man de la faim moom du ma ko digal kenn. grève de la faim du ma ko digal kenn. waxtaan nañu la direction des ressources humaines. gis nañ éléments yi nga xam ne yëpp directeur bi teg sur la table. léegi nag bi ma ñëwee ci ñoom jox naa leen ak seen i tout le compte de la rencontre ñoom nag ñu ngi waxtaan pour xool ban décision la ñuy jël mais li wér te wóor ça c'est des enseignants yoo xam ne mënuñu militer ci suma syndicat parce que j'ai un syndicat du moyen secondaire en tout cas ñoom ñoo am la liberté d'apprécier par rapport à toutes les informations yi nga xam ne jëlee nañ ko au ministère de l'éducation nationale via le DRH. ñoom ñoo ñëw di aman seen grève de la faim ñu ngi toll ci fukk ñett ñoo ci ëpp di ay euh, soxna ndax ñu ngi toll ci juróom-ñett ñanga ca siège yu euh, FRAPP France Dégage mouvement Y sax foofee siège ba war fa daje tey ci ngoon ngir indi ab njàppaleem ñeel ñooñu di ay enseignant nekk ci grève te jile ne nag am na li ko metti ci bile situation Alioune Sané ak ñi mu àndal nag ji oo nguur gi ñu euh, fexe daal ba jël ñooñe ñu dugg daal ci lekkool bi Ibrahima Diame ak RFM kumpa jeex ñu waxtaanee leneen di préfet bu département bu Salémata nag dafa dal di tere ab doxum ñaxtu boo xam ne Euh, ñu ngi ko doon amal ni ki dëmb ndax naqarlu ni dund gi yokkee rawatina sax li di transport diggante Kédougou ak Salémata am match boo xam ne nag collectif bu boole ndaw ñi ngir développement bu Salimata daal di am waaye nag euh, boobule euh, marche kilifa bi daal di préfet moom moo ko daal di tere waaye terewul nag ndaw ñi daal ne dañu dem daal fexe ba amal teen marche boobee ndax ni transport bi yokkee dafa jéggi dayu Salif Ba moom mooy coordinateur boobule collectif mu ngi ci micro beeg Ibrahima Jabaxate. deux mois nag ba tey defuñu dara moo tax ñu bind demande marche euh, pour ñu euh, ñaxtu. Euh, jafe-jafe bii di population Salémata di dund mooy lan mooy paase trois mille francs diggante fii ak Kédougou léegi nag bind nañ jaar nañ fu ñu war a jaar pour euh, euh, ñaxtu ndax suñuy àq ak suñu yelleef la fii si euh, Salémata mais euh, c'est commandant euh, dem na négocier depuis démb ba tey ndax ñu bañ a def marche bi ci la préfet génnee arrêté préfectoral nous interdisant ñu tere ñu ñaxtu léegi nag euh, comme que def nañ suñu communication def nañu suñu suñu suñu lu ñu war a def yëpp pour dajale jeunesse bi dajale population bi euh, ñun dinañ assumer dinañ assumer suñu rôle dinañ dem euh, si bërëb bi xaar leen ndax luñ fa fekk aussi muy lool ma boo naka noonu béykat yi nag mer ba futtu dañoo mer kii di sous-préfet ba nag ndax. Euh, kilifa boobu daal moom moo jël euh, seen i demande yëpp ngir ñu amal seen dox ñaxtu jël ko sandikoo nële ñoom nag daal li ñu doon bëgg a marché mooy euh, ñàkkub intrant maanaam ay jiw ngir seen i mbay kuréel boobu nag ñuy wax aar suñu moomeel ne pare na ngir daal defante ko préfet ba mu saf sàpp te luñ ci am jël muy nag o kilifa bi maanaam président Macky Sall mu daal di ci àddu coordinateur ba mu ngay tuddee mu ngay wuyoo Basirou Ba mu ngi ci micro Omar Ndiaye. dañu waroon a def dox doxu ñaxtu. dox boobu boobule li ko sabab mooy. jafe-jafe bi am ci baykat. gis nañu lu ñu mësul gis. ci jiwu bon. ak qualité wu suuf ak i quantité am. gerte bu baax moom amul. ñu ne deetawaay ñu dégg ne. engrais amul. te gisuñu ko. ba sax ñu bind ñun. du sax ne. dañoo bañal rek marché bi. waaye li gën a mooy autorité bu nekk ci goox. di bunnu ay nit. sous préfet bu Maabo mu ni ñun ay xar lañu. ci ginnaaw boo xamee jox nañ ko juróom benn demande bi ci jiitu mars la woon diggante Njaayeen Bagana ak Kër Baabu beneen bi biñ ñu ko bañalee ñu ne kon nañ dem Luumeen nga xam danañ sori route nationale bi nangalut ñu benn ci mu ne man moom sama carrière moom moo koy baare kon daar daar dañ bëgg sous-préfet bu Maabo jógee fii ci arrondissement bi bu fekkee ne am na leneen lu muy jéem a essayer bañaat Maabo ci buntu arrondissement wom ba la aar suñ moomeel di defee ñaxtu bi bañ ko woowee téléphone nag su préfet bu Mabo ne loolee amul Moussa wax ne benn doxub ñaxtu rek la daal di tere li ko nag waraloon mooy dadoon bañ ñu daal di barrer route nationale ba. ñu wutali Touba Mbacké foofe nag mbënn bi ni mu fa sonalee ñenn ci askan wi nag waral ba xalif général mu Mourides taggat ci taabal gi téeméer ak juróom fukki million suñu koppar loolu nag gannaaw beneen enveloppe bu mu njëkkoon a génnee tolloon ci juróom fukki million. fasin ak taxaw lu mu néew néew ñetti junni euh, kër ñu déglu leexal ak Pape Balla Gueye xalif général des Mourides defati na jéego jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci mbënd mi ci diwaanu Touba gannaaw enveloppe gu toll ci juróom fukki millions yoo xam ne joxe woon na ko téeméer ak juróom fukki millions la génneewaat jagleel leen ko suñu sukkandikoo ci Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké mi nga xam ne moom moo yore kàddoom lii nag bëriwut dafa tàmbalee rek ndax xam nga ne joxe woon na juróom fukki millions yoo loxol sëñ bi si jóg mu yóbbul ko gouverneur bu njaareem boobu ba tey ñu leen di soññ sax ndax nit ñi fi ñu toll ci xat-xat waaye xam nga état mënta def dara te deful recensement recensement bi rek moo yàgg ndax lañ nattoon yaakaare moom la doon ci lim ndeke weesu na ko di wéy ndax ndeke dem na ci ñaari junne juróom téeméer rek boo xoolee bu ñu leen séddale woon cinquante millions ku ci ne ñeenti junne nga am kon loolu bëriwut lim bi mën naa nur lu bari looloo war rek sëriñ bi comme na nga ndax boo jàpp jàppatoon ëpp na téeméeri kat daa tàmbali woon loola moo tax it mu génnewaat lu mat téeméer bi lu ak juróom fukk fas ko yéene dugalaat ci biir gannaaw liggéey yoo xam ne ñu ngi koy amal ci biir dëkk bi association bi di Touba ca kanam ñoom itam xalif général des Mourides jox na leen lu toll ak fanweeri million ngir ñu daal di fexe génne ndox yi taa ci yenn kër yi balaa màggal gile. ci biir liggéey boobu nag mu jël ci fanweeri million ngir xam ne ñëwoon ngeen ci moom laaj ci ko ndigal te xam na ne ñaan nga képp ngeen di séentu ci moom ndax taalibe yi am nañ positif joxe te ñu ngi joxe waaye nag lépp lu ñuy jëfal suñu Touba yéexam di caa war dugg kon noonu rek la lii moom kon lim jëm ci fexe ba manque ndox mi ci biir kër yi ndax sonn ni ñu ngi xool sax ba xam euh, tante yi nga xam ne ministère de l'Intérieur am na fa nga xam ne mënatuñoo dëkk seen biir kër ñu ngi ko waxee ñu du seet ci kër Sëriñ Tuubaa fu ñu leen daal di jënd daal di leen koy jagleel ngir ñoom itam ñu daal di mën a am lu ñu suturloo fi léeg màggal gile Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média Papa Balla Gueye jaajëf ñëwaat fii ci Ndakaaru Kër Massar système de pompage biñ fa daal di amal ci entre 3 bu Parcelles Assainies bu Kër Massar dara doxu fa te sax ni ñu ko yoree baaxul li nag ñi ko xam ne di ña yeewoo ca unité 3 4 ak 5 ci waxtaan bi ñu am doon dem ak waytaskatu xibaar yi ñu nag bëgg sax ñu daal di ubbi ab l'enquête ngir yëf yi daal di leer waaye tamit ministre bi euh, ministre bii di Omar Gueye ak ki jiite ADM di Issa Sall tekki seen ndombal tànk Mamadou Max ba cay leeral. mu sol combinaison de pluie ndox yi egg ko ci oom yi Daouda Mbaye di délégué de quartier bu unité 3 mer lool ci autorité yi. ñii nga xam ne dañ leen jox ñuy jiite ay direction yeeg yooyu dañu war a jàng temps ak na yéex. buñ sukkandikoo ci ñoom ñeenti électropompe yi ñu leen diggoon gisuñ ko te tey jii ndoxu yeneen quartier mooy walangaan di ñëw di leen sonal. beneen problème bu rëy dafa sonal unité 3 indil leen jafe-jafe yu met di leen di yàqal lu rëy wax nañ ko sous préfet bi mooy canal bee nga xam ne mi ngi si tali bi booru tali bi moo war a jël ndoxu tali yi dafa am quartier yoo xam ne fa la sotti seen ndox ndax amuñu fu ñu koy sotti mais unité 5. ñoom ñii ñu bëgg sax autorité yi gérer mbiru inondation yi fii ci Kër Massar fexe ba démissionné Ali moo mooy njiital jeune quartier yi. bu fekkoon 15 milliards leen Macky Sall jox def nañ ko fi mu loon dem te yaakaar naa duñ dund situation bi mel nii nañ leen ñoom ñëpp sanctionné Cheikh Issa Sall sanctionné le ministre Oumar Gueye nañ leen dégommé waxuma la sax ci euh, bi agence mi jiite mais ci fonction Sénégal wala ñu doon jiite benn benn benn kuréel. ñoom ñii ñu bëgg sax ñi ibbi enquête ci mbir mi. moo waral mbir mi yéex xaalis tegu na kilifa gi dafa joxe ndigal nit ñi dañu sonn sauver leen lu mu gën a gaaw ñu toog mel ni ku naan seen attaaye ba mu neex leen soog a ñëw jub baay ba ñu indoon ñuy soog a taxaw loolu nag bëgg nañ ñu saytu lu ko waral. population yi bëgg nañ itam ñu yokk dispositif de pompage bi waaye itam defar aménagement bu baax ngir li ñu pompeeti du wàcceeti ci seen quartier Mamadou Mar Ba Kër Massar rajo Futur Média. Mal Dieng Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Seydou Nogo. tey fi nga fële. tabarkal dañ na ci safar gi rek. bisimilah waaw yàlla nekk ak jàmm. afro ci wàllu jigéen ñi Sénégal dem na quart de finale. démb dañoo wulli ñii di waa Égypte juróom-ñaar fukk ak juróom poñ la Sénégal am euh, ñii di waa Égypte am ca fa juróom-benn fukk ak ñett mu nekkoon nag match bu amoon euh, yi bëri ay jafe-jafe Leena ak Yacine Diop ñoom ñooy ñi gënoon a fës ndax Leena jot naa dugal fukk ak juróom-ñeenti poñ euh, Yacine daal dinaa kon dugal lu gën a takku ci ay lim loolu lépp nag soo jotees na ko ndëxëñ gannaaw jongante ba. ñaari jongante ñaari ndam Sénégal àgg ci quart de ñel ñeel afrobasket gile kenn ci joueuse yi nga xam ne moo ëpp la mu dugal poñ ci jongante Égypte Sénégal gile moo di Yacine Diop fukk ak juróom-ñeent lay tollool moom nag xamle na ni liggéeyu équipe moom moo tax li ni mel am. man je dirais préparation bu baax la expérience bi mais majeure partie gëm naa ne sama coéquipière parce que ñoom ñoo ma wóolu ba jox ma bal bi ñoom ñoo def liggéey bi ci war yëpp. jot naa joué Euh, tournoi boobu ça m'a appris beaucoup de choses moo tax ma ñëwaatee en 2021 ma xaw ak toute expérience xam nan la ñuy euh, loo gis rek si live communication coach daf may communiquer par rapport ak ma war a def wala laa warul def you know man tam aussi ma koy wax ne que xëy na lii laa war nii la woon wala nii la woon donc communication moom lu am solo la si entre coach ak man ka di tàggat di Moustapha Gueye moom it gis ne la mu santoon xale yi def nañ ko même bu fekkee sax am na yenn rëq-rëq yoo xamante ni wax nañ ko xoolaat laata ñuy dem ci deuxième tour bi. wax dëgg yàlla kontaan naa ci ñoom kontaan naa ci ñoom léeg-léeg naa leen motiver arrangé leen mais vraiment kontaan naa lool ci seen. Euh, intention yam ci match bi seen ñafe bi mais comme tout le monde gis nañ am na yu ci baax baaxul yoo xam nañ ko perte de balle na c'est vrai pour moi li gën a gênant sax mooy rebond offense ñu euh, per deuxième suba ci entraînement bi tamit à 13 mais c'est déjà bien et avoir la première place pour aller directement amul lenn loo xam ne def naa ko pour si dinaa leen war a soxla leen mais c'est juste pour que ñu génne potentiel bi am mais je pense que ñoom comprendre nañ ko xam nañ ko et que réagir nañ positivement pour mën a Sénégal nag fi mu nekk nii dina bër ñaari fan balaataa muy amal quart de finale yi nga xamante ni am na ticketam gu ko fay yóbbu Mali naka noonu ak Cameroun waaye itam Nigéria mi nga xam ni mooy double tenant du titre bi mu ne woon Soda Thiam fii ci Yaoundé ngir radio Futur Média. Mali dafa qualifié itam quart de finale daani na d'Ivoire gem ci quart de finale yi équipe bu Nigéria tam euh, nag dina xam kan lay dajanteel war am tey jii dox diggante euh, Mozambique ak Kenya football euh, bu ñu jagleel ñi seen euh, dégg naqari te seen làmmiñ taxaw mooy les sourds-muets Sénégal dem na ci demi-finale ndax dañoo waroon a ak Ghana ci quart de waaye Ghana dañoo corona ba ñu daaj leen kon daañeel ci ay forfait Sénégal nag daaj na dañ nag léegi ak waa Cameroun ngir ñu amal demi-finale boobu la bés na àllarba tey jii Tassirou Diallo moom mooy directeur technique bi ñu dénk wàllu football sourds ci réew mi am na lu mu ci yëkkati ci kaddu ak euh, jokko bu doxoon digganteem ak Youssouf Bodian. on devait jouer euh, ñun ak Ghana ñoo waroon léegi bon dañ leen forfait Égypte aussi forfait nigeria donc léegi bon ñun ñu ngi war a jouer en demi-finale contre le Cameroun Égypte jouer en demi-finale contre le Mali donc euh, ñun mercredi la ñuy jouer le 22 incha allah di yaakaara dem jouer ji la finale la. parce que loolu moom mu nekk suñu objectif mu nekk nii. demoon nañu seetaan yi euh, waa Cameroun yi bon bi ñuy joué seen match. mais gis nañ ne bon équipe bi aussi am na ay euh, quelques individualités yoo xamee ne bon jot nañ leen euh, xool bu baax. yaakaar naa ne bon ce sera un match tactique. et nous espérons que ne bon dinañ si war a mën a génn. donc nag match de football la. mais d'après jàngat yi ñu xamee ne moom lañ si def daal. yaakaar nañu mën nañu nekk seen kow ba mën leen a éliminer su fekkee ne xale yi am nañu réussite yi nga xamee ne moom la ñu yaakaar si ñoom. ñu waxtaanee wàllub programme euh, wax na ci li nga xam ne. moom moo di euh, wàllub euh, programme yooyu lay jàppale ndax ni Kenya ak euh, moom dina ñu fa gisee ni Sénégal mooy laale ak waa Cameroun Mali ak waa Égypte ñu jeexal ak Barça dañoo tëwoo démb seen diggante Grenada ku nekk am nga benn sa kangamoram waa Barça waa Barça yi dañoo war a sant yàlla bu baax gannaaw ba Ronald Araujo égalisé te ba yëf yee desee tuuti ndax dañoo ne teeloon a mëne hmm. itali napp itam daal di nañoo def jéego dóor Udinese ñeenti bal ci dara Kalidou Koulibaly dugalaat na beneen bi moom mooy défenseur Sénégal bi ndax dugaloon na si ba ñu jongante ak waa Juve. Mhm. démb itam euh, dugalaat na Victor Osimhen itam daaj na euh, làmb caax yi foofa ngir fexe ni ba équipe bi euh, di bu Naples bi am taxawaay bu gën a jàkk ci googu la Serie A. Mongo jaajëf Malick Diagne Junior. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. xibaar ñeel caate yi dañu dem foofa ca Touba Mbacke fekki Faminata Ba. dali nag jàmm ci dëkk bu sell bi di Touba. comité bi yore wàllub organisation bu grand màggal daal di amal niki démb ab séminaire ca résidence cheikhul xadim bu daaru marnaan ñu doon waxtaani taxawaay bi nga xamante ne moom la taskatu xibaar yi war a am ci grand màggal bu Touba. Massalikul Jinaan doon amal dimonche bi ñu weesu cérémonie de dédicace jàngat bi ñu duppee odyssée maritime de Cheikhul Khadim mu nekk ñetti xaatim yu njëkk yu Serigne Moustapha Mbacke Gaynde Fatma daal di fësal projet bi nag mu ngi ko saytu ci diirub fukki at ana Rocha. nettali jaar jaar bu dëggu benn pàcc bi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke. ci beneen pàcc gi tubaab yi sëñ Moustapha Mbacke Gaynde Fatma mooy ki bind bi téere dafay indi euh, jëmm joo xam ne moom moom dong la jàmmaarloo ak euh, nguur gu toll ne France nekkoon di dogal dafa natoon nit ay jaam ak xeet yu demee noonu ñoom nag tubaab yi jàppoon ne kii moom nekkam fii di doxal li muy doxal dafay bëgg a salfaañe seen kàddu ak seen autorité maanaam seen loolu fukki at écrivain chercheur bile gëstu na ko ngir taxawal bile projet loolee waral dem na Angola dem Gabon waaye itam Mauritanie. panafricaniste la xam-xamam màcc jëm ci yoonu murid sëñ Moustapha Mbacké Gaynde Fatma di rafetlu lool li ñuy gën a faral di gis ne ay nit ñu ngi jóg di bind ci jaajaaru Serigne Touba. nit ñaa ngi gëstu gëstu yu xóot di dem fu ne di yër lu ne ci làkk wu ne daanaka moo tax bind yi dafa baax ngir ñu xam ne africains yi senegale yi ay borom xam-xam yu bind lañu ñu fexe nag ba bind yooyu yi segam indil nañu bind tubaab yi ñuy suñuy bind dem fa ñoom. loolu defe naa ne dina doon lu baax ngir tubaab yi xamut li ñu bind fii mën a xam ginnaaw bu ñu xamee ñoom lañ leen bindal ñoom mu jóge ci ñoom waaye itam ñu xam ñun li ñu bind lan la. am na yeneen juróom